ay ndigal mhm. ay téere leen jox téere ya xam-xam moo ci ne mhm. bëgg ñu doon ko jottali nit ñi ku fi ma sa jaar rek euh, sa liggéey moo doon jottali ndigalu yàlla mhm. kon yàlla bëgg nit ñi xam ko ndax ñu man koo def loolu lañ doon jottali ba yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mujj kon fi ma sa jaar rek euh, xamatax dañuy wax sax ne daanaka lépp lépp bëgg nit ñi xamatax allahu alladi xalaqa sab'a samaawaati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu ah. l-amru baynahunna mhm. li taalamu wala mhm. ñu sukkandiku ne lépp yàlla da ko bind ngir bëgg ngeen xam mhm. xam ko moom yàlla xam li mu santaane ñu man koo def li mu tere ñu mën ko bàyyi euh, te ci diine it boo ko seetloo euh, lislaam bi nga xam ne mooy diine yàlla euh, bu ñuy wax xam-xam mooy diine ndax baat bi njëkk a wàcc rek yàlla asamaan ak suuf jokkoo ci mooy baatu jàngit jàngil lañ santoon yonent bi alayhi salaatu salaam jàngil lan mm-hmm. iqra ji lépp mm-hmm. waaye li am solo mooy ne nekk bismi rabbi mm-hmm. jàngal loo xam ne boo noppee dalay gën a jegeel sa borom day tax nga gën a bëgg sa borom day tax nga gën a topp sa borom ko bépp xam-xam bu am njariñ xam-xamu diine tey lépp nag ci lay sukkandiku moo tax sëriñ bu ñëwee foofu la jaar ndax moom liggéeyam weesu wut yeesal li yàlla wàcce woon ci yonant yi bañ jeexee ay borom xam-xam wuutu bu mag ci moom wuutu ñun ñëpp nag nekkal fi yàlla ci njaboot gi ak ci diini kon mbiram xam-xam mënu ci ñàkk a jiitu ndax xam-xam moo jiitu ci diini dina moo jiitu ci diini nag ab wooteem xam ci jiitu wos yi mu ko taxawale wosu xam-xam moo ci jiitu ndax ku xam moo mën a xàmmee liñ ko sant ak liñ ko tere mu mën a def ndax fii ci àdduna li ñu fi indee weesu lool. Mhm. def ndigal ay bàyyi tere. Mhm. ku ma sa raw ci loolu rawee. Mhm. loolu nag mënoo koo def te xamu ndax yàlla lim gën a bañ bokk na ca koo koy làmbut. bañ làmbutu ma waral yooyu ñu wax yëpp. yonent yi li ñuy màgg màgg. duñ fetal waaye dañ leen wax ne jaar leen fii. lu ma sa ñëwit te wax yu wàccu ca. dañuy xaar ba wax yu ñëw ndigal ñëw. ndigal yooyu nag lañ bàyyee nit ñu baax ñi ba Sëriñ Tuubaa ñëw doon na ko ci ñoom. ci ay mbindam lañ ci fekk lépp mooy. wane ne loolee mu jëlee ci yonent beeg ñi fa wutoon yonent bi mhm. loolu la doon jottali xeet wi di ko ko yaatalal waaye bëgg ñu mën a jariñu ñoom ñëpp ndax boo léegi ñu mën a mucc mën mhm. nañu wax ne xam-xam daal mhm. mooy laltaayu yi nga xam ne moo ñu war ñun ngir ñu defee ko xam a ci jiitu adduna ji ñu ñëpp xam nañ ne mbir mu ne boo ko xamul mënu ci jariñu yi am njëriñ yëpp danga koy xam dal ko mën a jariñoo kon lu am solo la loo xam ne euh, war nañ ko bàyyi xel baax a baax moo tax sëriñ bi mu rëy ci moom lool mbooleem ay ñooñam ak barab bu mas a nekk nañ jàpp ne xam-xam a tax hmm. fii Tuubaa tedd gi moo waxal boppam li tax mu sanc ko woo caxlu da aban maskana taallumi mooy ku fi dëkk dangay des di xamlu hmm. ak li bàyyi koo ci lu mooy boo xamee ba noppi nag nooy jariñoo xam-xam bi noo koy balle ba mu ba mu gën a yaatu gën a mën a tasaaroo ba hmm. mu di al fikrati wa tafahumi kon mel na ne loolu daal wàccu waay bu rëy rëy la sëriñ la min ci eh, ci xam-xam ci tudd nga léegi maanaam sëriñ bi ak euh, xam-xam euh, ak fi nga xam ne foofu la ko tegoon ak ni mu ko ñoree woon sëriñ bi ndax bi mu ñëwee fekkoon na fi xam-xam ay xeeti xam-xam fii ci Sénégal waaw xam nga sëriñ bi euh, dafa ñëw ci diine ci ci ci bii ab diine la ñëw mm-hmm. boo xam ne mbaax ak gëm yàlla ak wóolu ko ak doyloo ko ak nag liggéey ci diine loolu la fekk ci loolu la fekk mm-hmm. bokk na ci li ko yàlla gën a baaxee mooy fekk jaww ju baax mu feeñ mm. ñëw nag daf lu gën lépp ndax ñim feeñ ñëpp xam-xam la woon sëriñ Moussa Ka mi koy wax ne maam yi ci mbusoo bi xam diine goree leen te jubóog lam toora mm-hmm. xam na it histoire maam maharam mm-hmm. li ko indi euh, jolof ay maamam mm-hmm. moom mu ñëw bawol lépp weesu jàngale ak yare ay ndénkaanam yi mu bàyyi woon ba mu fii jógee it li mu dénkoon njaboot gi bokk na ca na leen xam-xam ñor ak jaamu yàlla. kon euh, sëriñ bi loolu la fekk waaye bu mu dikkee nag jaar na fa ku mas bëgg xam-xam di jaar mu jàng. daj ci loo xam ne it néew na ko ko daj. xam-xam jaraloon ko it néew na ñu mu ko jaral. boo demee ci an-Nubzatul Mubaaraka. Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Adagani radiyallahu di ko di ca leeral. njëlbeenu sëriñ bi ci wàllu xam-xam da nga yëg ne euh, yitte xam-xam war su ko jox yitte. maanaam sëriñ bi àggoon na ci foo xam ne li mu ko jaral jarul ñu ko bari euh, misaal mi ci joxe rek mooy nee na téere bi mu njëkk am téere bi mu njëkk am téere bi Imaam Xasaali la boo xam ne li ko ko may daa gis benn naar bu ko yor mu ne ko bëgg naa téere bi mu ne ko dama ko jaay mu ne ko loo ko jaay mu ne dërëm boobu dërëm yombul sëriñ bi ànd ak moom ne ko nañ dem mm-hmm. sëriñ mët la mi nee na daawut dem di laaj kenn day ñëw rek di taarut di nafaxaatillah seeti menn mbokk moo xam ne taalu bi Mamoor Anta Sali woon mhm. di ab yaxantukat mhm. bu mu leen gisee waaye melokaanu sëriñ booba xaw naa doy waar mhm. tax mu daal koy jox mbubb mu rafet ne ko mbi summi ko sànni ko teral leen bàyyi leen muy dem waaye nag joxu leen leneen biñ génnee sëriñ bi ne naar bi ndax bëgg nga mbubb mi ma jox la ko te nga jox ma téere bi mu ne ko waaw mu daal dem mbubb moom foroon ci sën ba la solaat jël mbubb mu yees mi jox naar bi mu jox ko téere bi mi bidaayatul hidaaya imaam alxasali nee na téere boobu la njëkk am ci téere ginnaaw bi ma jàngee aruud jàng naxwu bokk na ci lam jël waye ko mu nekk mu lay na sudur loolu yitte ju kawe la ci jamono jooju nga xam ne boobu téere amut lim bind ci ay téere it nga xam ne booba yàlla da ko daf mën a teel a mën a bind fu mu dégg ab téere dem fexe ba am ci ab day bind ko wax na it ci boppam. boo xam ne hmm. moo ko nettali sëriñ Modou Lamine tudd téere boobu ne. Hmm. fànn ko arut daanaka li ñu waxee moo ko jàngal boppam. nee na Mamour Anta moo ko dalal. Hmm. waaye dañoo toog tuuti rek Mamour daal di wéradi jàngatul. na mu gis menn mbokk mu yor ab chara boo xam ne imaam ak damaam yi ni moo ko def sara xasar ji la. téere bu xam ci arut la. nee na mu laaj mbokk mi ne ko foo jëlee téere bi mu ne ko daal menn mbokk mu toolam booyoor. moo ne woon ku ko bayal toolam ma jox ko téere bi nee na mu bayal ko mu jox ko téere bu fay ko sëriñ bi ne li tax ma de ko laaj mooy mhm. bëggumaa jànge ci téere bu am lënt bu ko leeree ne waa ji fi ko jëlee leerul mhm. nee na du ma abbu téere bi nee na téere boobu laa jël bu ma xëyee dem ci tool yi mhm. ndiir si Mamour tëdd bi mu tanee laaj ma ba xam ndax yaa ngi doon jéem a jàll ci téere ba la déet ni ma ne ko waaw nee na mu ne ma indil ma xool nee na ma tànn ci ñetti bayit wala ñeent saraa ko waxal ko shawahid yaag lépp mu ne ma ah lii de xaw ma ku ko dégg nii ci jamono ji ku lu xaali mu jaxatika la kon mën na jàpp moo ko jàngal boppam yitte ju kawe jooju la jógaale ci xam-xam ba yàlla jox ko ci cër boo xam ne musuñoo xam ku mu ko jox mu dund ko nit ku dundal ndax musta tàggoo xam-xam àggoon na ci ay jamono nee na day dajale ay xéewal naari ganaar yu daan ñëw ci Mamor ñëw ci dëkk bi muy ànd nag muy dem fexe ba gis leen di leen jox ci xéewal yooyu ngir ñoom ñu di ko jox xam-xam yu yor yëpp muy dajale nag bu noppee segg la ca gën mu jël ko mm-hmm. te ku xool mbind mi dëgg-dëgg danga xam ne mm-hmm. te ku mës ku mës génn di digal bi buñ la nee xam-xam bi ni mu yaatoog ni mu selleeg waaw dan la xaw a jaaxal waaye yitte ju kawe ji mu amoon <laughs> moo taxoon sëriñ bi yàlla jox ko cër bu boobu ci xam-xam mu tàmbali nag di ko dund di ko dundal mm-hmm. noonee mu ko doon amee noonu la ko dundee ku teel a yéeme la ci fegu ak ñoŋ ndax xam-xam dafa du lu ñuy foyee lu ñuy sàggane mm-hmm. seen soxna mas na ni doomu bàjjen def rek naan sëriñ bi daal ni muy muuroo nii nanguutu jaxasoo kenn daal daal di jàpp ci mbubbam moroom romb ko rek mu tëj ci mbubi ne ko tey da nga man sëñ bi xëcc xëcc mu kii saat suñu defoon ci jibam la di nit dagg dagg loola bàyyee ko dañ dem <laughs> nit ñi xam ne kii nag kii bokkut ak nit ñi oh. woy juróom ci boppam teela bàyyi xel loolu teel a gis loolu ba tax mu waggar ko nanguut bu dem fenn fu mu ko tàggu mu tere ko ba wax na moom sëriñ bi ne am na jamono bu xaw a jaaxle ci taxawaay Maam Mor ci moom mhm. waaye benn bis Ceerno Ibrahima Kan moo fa ñëw Ceerno Ibrahima lay mooy turando maam Ceerno Ibrahima moo yeesalal mag ñi fi wirdu xaadir bi mu fi ko ganesee bay dellu nee na ba tolloo nekk sëriñ bi nee na Maam Mor ne may leen ma damaa soxla Ceerno mhm. daal di joxañ sëriñ bi nee na maa ngi kinee bi waaye dañoo delloo bunt bi sëriñ Maam Mor an sëli ne maa ngi kinee bi mhm. nee na mu ne ko nii bi dal sama doom ji fi nekk moom la ëpp yaakaar ci sama njaboot daa bëgg nga ñaanal ko dara bañ koo dog bu màgg fi mu jëm mu ne ko anam mu ne ko ah bunt bi de daa dellu nee na mu tàllal ñaan ñaan ne ko incha allah danaa fi mu jëm sëriñ bi nee na booba laa xam nag ne ndekete maam moor nii mu may bañ ma génn fenn. bëgg maa sàmm ak bëgg maa rek la. dana yàlla na ko yàlla fay. loolu taxawaay yu am solo la yoo xam ne ci njëlbeenam. moo tax kon. dëgg mu teel a ñor ci xam teel taalif xasida yi mu njëkk a way nga xam ne ay fukki at ak juróom-ñaar la mhm. dangay nga yëg ne kii ci jamono joo xam ne bii a bi mu nekk xam-xam sax tasaaroo ci ay rafetaay gi foo ko teg weesu wallaahi bari na lool yoo xam ne nii eh, yu mag yi siiw nii waaye jiitu na loolu mhm. maraas yi mu doon def ak eh, mag ñi doon ñëw ci Mamadou Moussa di ko gende ko di wax ak moom ak mhm.